Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbok internet yi nga xamanteni yene yéenay seetaan télé bi Jazz GTV G TV la télévision révolutionnaire ñu lañ di lañ bu baax bah. baax gannaaw bi Yalla dogalee té nak ñoo amoon yëg-yëgu seet si ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye di marabout international waye tam doon notable dëkk ci réew mi tam. Sa suñu tam ñuy gis ay digleem yo xamanteni ni daanaka bu mu ci def bu né rek mu doon askan yu yépp. ak fi réew mi tollu tey ak jaxasoo jaxasoo bi tax ñu seet ko bëggoon na waxtaane waat ak moom lenn ci bu jamono demee ba réew am réew tollu fenn fii taxawaay biñ ci war a am ak naka lañ ci war a doxee ba mën a mucc ci yu bare bare kon suñ Cheikh Ibrahima ñu ngi leen ñuy jëlee si macha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa inni u'iisuha bika ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يقدرون لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Baye Talla ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu itam sa mbokki journaliste yi nga àndal muy waa Dias ji TV di leen dalal fii ci biir kër gi di leen wax bisimilah. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima ci nuyoo bu am solo boobu am ñaani macha allah yal na yàlla sama borom jàpp na lépp ci rajo yi di leen ñu gis ni rek gannaaw yàlla dogal na kilifa gi nga xam ne suñu borom dogal na ko ci sa jëmm ji waaye ñu gis tamit chaque jour bu réew mi tolloo ci yenn tolluwaay yi ñu dégg sa kàddu mu doon ay kàddu yoo xam ne soññe lay doon ay kàddu yoo xamante ni digle lay doon ci ñenn ñi moo tax ñu dellu ñëw fi tey gannaaw jamono bi weesu bi mbas bi duggee ci réew mi gis nañ nga defoon benn déclaration boo am solo am yoo ci waxoon la nga ca waxoon yëpp biñ ko toppee ba ci fi mu mujj gis nañ ni la nga waxoon lépp am na bi loola jeexee tam tey jii ñoo tax ñu ne ñun gannaaw toppoon nañ loolu nañ topp si waat lii ba xam tam ban gis-gis nga am ci fi réew mi toll par rapport ak décision yi nga xamante ni njiitu réew yeeg ñi ko bi jëloon ko. Mhm, xam nga Baye Talla am réew ni ñu koy yore dañ koy teg ci ni ñu suñu borom digal ñu yore ko am réew. Mhm. ndax yàlla moo trancé àdduna. jiital fi maam aadama xamal ko ni ko àdduna bee nga jëm nii lañ koy gérer. Mhm. mu doon nag ay parti yu yaatoo yaatu kenn ku ci nekk ak fa suñu boroom borom féetale ak na koy doxale mu mel ni réew mi di senegal nag mhm. dafa am lu fi jiitu gouvernement mhm. gérer woon réew mi muy kilifay diine yi ba yàlla def ñuy rafaatal muy wàcc ba agsi ci itam nag ñu décider ni réew mi dinañ fi jiital doomu aadama boo xam ni ñëpp dañuy ànd di ko déglu muy jàngu bi muy ñu munti doon looloo tax euh, réew mi di demee actuellement ni muy demee muy ñu tëbb njiitu réew moo xam ni ñëpp dañ koy déglu waaye itam njiitu réew mi ñu gis ni jamono bu ne dina jël ci ndombay tànk yooyu nga xam ni ñëpp ànd jox ko ko muy askan wi boolewaat leen ci ñoom te loolu luñ rafetlu la. moo tax ba bu demee ba jamono toll fii ñun ñi itam nga xam ni suñu boroom dénk nañu ay kàddu am lu ñu dimbale ci mbiru nit ñi ñu génne ko bokk ak ñoom. ndax wax naa ne réew moom lu ñu ànd bokk la rek. bu ñépp bëggee mu jàll jàll rek buñ puusandoo mu dem. su ko defee nag bi mbas mi dugg see ci réew mi. dama la waxoon ni la bu ko bu kenn nëbbu. ni dogalub yàlla la bu wàcc ci àdduna bu ko kenn nëbbu. buñ ko jiñ sàmba buñ ko jiñ demba nañ àndandoo wax ni mm-hmm. liikat balaa la bu jóge ci suñu borom mm-hmm. balaa nag jamono bu wàccee ci àdduna dafa am nu ñuy défendre nit ñi mm-hmm. nit ñi nan lañ leen di défendre mooy teel leen a xamal ni leen comme ci suñ borom la jóge nañu ànd ñun ñëpp delloo yàlla suñu bopp jéggalu ko dolli liñ ko daan jaamu dimbalante ànd ak yërmande su ko defee yàlla dimbaliñ ci njiitu réew mi itam waxoon naa ko ni ko na jël ab dund mm-hmm. jox ko askan wi ndax doomu jamono bu demee ba xiif dafay lott ci boppam dafay soxla ndimbal loo xamante ni si nii moo koy mën a dimbali ngir mu ànd ak sagoom mm-hmm. ndax yàlla sax wax na ni yonent bi doomu yi bu ñu xiifee bu ñu demee ba toll ci jamono boo xamante ni si nii xiif gi tar na ci ñoom boo moytuwul dinañ la wan weneen melokaan moo tax taxoon loolu ma teeloon ko déclaré pour gouvernement bi ak membre gouvernement bi teel a xam ni askan wii lii dal ci seen kaw di ab coono bu ñu leen tëjee te dimbaliwuñ leen ci jox leen ay aide yoo xam ne moo leen di dimbali ci xiif bi ñu nekk mën nañu ñëwaat ci seen kaw laaj leen luñ dundee te buñ ko amul it jafe-jafe rek lay indi wala duñ nangoo toog fi ñu leen di toogloo loolu taxoon ma teel ca def déclaration bi gouvernement bi nag dégg na ko mel na ni jëfee na ko moo tax it yàlla dimbali na ko ci li mbas mi di metti metti metti ci àdduna bi Sénégal moom mel na ni am na xam nañ niñ koy gérer xam nañ niñ koy téye ci wàllu médecine bi waaye ci wàllu gouvernement bi waaye ci wàllu itam sëriñ si ni ñuy gérer taalibe yi ba dëkk bi mën a nekk ci logique boo xam ni ñun ñëpp dinañ mën a stable nekk ci jàmm jërëjëf seen Cheikh Ibrahima ci ci ci kàddu yu am solo yi bala maa jaar rek damay bëggoon naa xam tam bu fekkente ne ndax alxuraan da koo indi wala suñu borom am na fu mu ko bind ndax téeméeri at bu ci nekk dafa am mbas muy xew parce que dañ ko xool tey bu ñu ko xool ci archive ñu ngi xool ci jamono yi 1720 am na mbas mu fi amoon jamono 1820 beneen mbas amaat na fi jamono 1920 dégg naa ci la choléra choléra bi xewoon fii 2020 tey jii euh, jàngoro ji di mbas mi daal di xewaat est que dafa loolu ñu ko wax ñépp amuñu dalil bu jóge ci suñu borom dañ ko wax rek ci seen takk ak seenu seetlu. Mhm. ci tombé waaw bu yu muy waaye bu dee li jóge ci suñu borom daal wax na ni bu ngeen demee ba jaxase kaw suuf dinaa leen nattu. Mhm. loolu moo jóge ci yàlla. Mhm. nattu bi yàlla nag amulu ko heure. jamono bu demee daal ba moom mi nga xam ni moo bind jaam ñi teewoon la teg leenu um nattu ngir xool leen ñoom. bu waxtu jotee rek du koy wàcc ci seen kaw loola yàlla amul ko heure nit ñi nag ñoom lu ñëw dinañ ci defub taxaw seetlu lu ñëw dinañ génne la ci borom xam-xam waxoon waaye li yàlla wax nag moom moo ko seet nañ ñëpp te yàlla néewul ni heure nangam laa leen di natt wala heure sàngam laa koy teggi nee na daal dinaa leen natt te bu ñëwee di ngeen xam ne lii am natt la bu leen ko nëbb bu leen ko jiiñ sàmba wala demba wax leen ñëpp leen nattub yàlla la ñu ñu ñu wakkiirlu ci suñ borom bam teggi waaye amul heure comme ni ko nit ñi di waxee demewul noonu ni mu demee daal mooy ren jii ñun la fi fekk balaa daana fi fekk suñuy maam ñu jox ñu ci ay ñaan ren ñun la fi fekk yàlla jiital ñu ci diine ji joxe nañ ci ay ñaan na ko ñëpp jëfee loolu mooy li ci am yeneen yëpp nag moom waxi réew mi la rek te réew mi moom liñ fi wax lépp kenn mënu koo déglu loolu la bay taal waaw jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima ci leeral bu am solo boobu moo tax xawoon naa jaxase sama bopp léegi bokk na ci itam bu ñu koy xool fi mu toll nii gannaaw bi ko bi suñu borom dogalee mbas mi xew kàddu ya nga ci waxoon la nga ca waxoon yépp message ya nga ca yónnee woon itam ñu gis ne tey jii la nga doon mébét lépp doon ko bëgg tey jii bu ñu ni gouvernement bi yembal na ko tey jii hmm. kon ban jàngat nga ci am ban gis-gis nga ci am ak tam tey jii ñi nga xamante ni ñoo tax fi mu toll nii euh, nga mu jaraloon na ba nga defoon say déclaration ndax askan yooyu taxoon jaami yàlla yi donc ñoom it tey ban message nga la nga leen war a yónneewaat boo xam ne dana mën a tax tam ñu ànd ci ak gouvernement beeg action de la santé yeeg ñëpp ba mucc bi mas mi génn ci réew mi waaw xam nga aw askan bu ñu ne dañoo bëgg nangam ñu defal leen ko hmm. ki leen ko defal wàccoon ak ñoom nit rew mi nit ñi nenañ ko tëju bi dafa yagg te dañu am ay activité war ko dox euh, suñu problème dund ci bopam dafa am jafe-jafe waaye suñu dundin ci suñu bir li ñuy dund adapté wul ci ñun nuñu ko kenn ku ne wax ci xalaatam momin mu xol ni xawna distuti mu wàññi kon ñu ko wañ lit war nañu am couleur rek ñom ñepp taxaw seen bop taxaw seen bop ci fièvre bi parce que feebar la boo xam ni dafay wàllaatee euh, même bu doon kenn nit la fi dal sax kooku dañoo war a fexe ba ko wàll keneen. Mm-hmm. asuntuma laa mu nekk ci biir réew mi ñun ñu pare pour dund ak moom. Mm-hmm. Euh, li ma ciy digal askan wi daal mooy nañu jël seeni masque continuer di seetal seeni loxo nekk ci activités yi ñu xam ku am lu am farata nga dem dox ko koo xam ni am na amoo benn lu am farata nga toog te jéem a gérer sa njaboot ci ñu jéem a mucc ci feebar bi. Mm-hmm. ba keroog yàlla di ko fi jëlee. loolu mooy solution bi nga xam ni moo ñu mën a jëriñ ñun ñëpp ay taala jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima ci leeral bu am solo boobu bokk na ci xanaa fi may jeexale rek mooy mm, gannaaw bi nga xamante ni yàlla dogal na itam mm, yëf yi delluwaat mën nañu xëy na ci anam bi bi nga xam ne njot nañ ni moo mu mu mu ëpp tawfeex ni mu demee woon tey jii est-ce amul ay pàcc yoo xam ne gis nga ni war nañu mën a maintenir mu lu mel noonu mooy lu ci mel ni fay ji fi mu toll nii ñàkk surcharge yi nga xam ne arrêté tere nañ ko ci oto yi benn oto dootul yëpp taxawal wala ngay kii nombre ba ngay jël ak lu ci mel ni tey jii couvre-feu bi nga xam ne bi mu bi ñu ko déclaré léegi gisuñu benn tooxi doon na ci yenn musiba yi daan faral di xew guddi est-ce que yooyu doon na loo xam ne tey jii mën a jëriñ askan wi la xam ne war nañ mën a seet nuñ ci ba mu mën a véhicule véhiculer loolu. waaw xam nga affaire yoon ci am réew. Hmm. nekkul ni citoyen yi rek ñooy tëb décider ni réew bi noonu non non ku feebar dafay dugg si. am loo xam ni dafa am ko ko njiitu réew mi dénk maa ngi ko ciy félicité ni mu taxawoo réew mi fa nii muy Aly Ngouille Ndiaye euh, vraiment man mii nga xam ni tukki naa fu ne mu dugg fa lu ne ma gis ko xam naa ni ci mbas mi def na ci sax lu mënul mm-hmm. yaa ngi dégg parce que euh, affaire armée ak citoyen dafa sensible euh, dañuy ñaar ñu ànd ñoo xam ni seenu ànd yombul te àndit mm-hmm. yaa ngi dégg ci jamono yonent bi ba léegi itam armée dafay bokk ci biir mbooloo yaa ngi dégg xam nga bi ñuy xeex islaam nekkul ni ñi ñëpp ànd rek ku ne yor sa jaas yi hmm. dafa am lu yàlla jël jaarale ko ci Seydina sa mu jiite délégation bi di taxaw ci kanamu nit ñi di leen orienté ñi ci des nag ñoom ci système bi lañ bokk rek waaye jamono bu leen rasulaay soxlaan leen di woo hmm. ñenn ñi daan yable ba leen fi mooy armée nag ci am réew bu ñu tànnee ay nit entraîne leen ci mbir ngir bu li xewee na ngeen ko defale nii ki ñu ko dénk man ma génn fu ne ma jaar fa dem bi ma gisee li ñu ko dénk fi Sénégal xam naa ni ma koy doxalee baax na kon donc askan wi ak armée bi leen leen man li ma ci gis jàmm la rek donte sénégalais nag miinul di gisandoo oto police yu bari ci mbedd yeeg yooyu loolu da leen di affaleloo waaye loolu du dara parce que armée bi tam génn ñu ngir dañoo génn ci indi fi ñàkk jàmm wala dara dañoo génn ci jàmm réew mi dañoo génn ci aar nit ñi lu bari itam boo ko déggee ci coow bul tëb rek di juger réew mi wala nangam nangam parce que xale yi xamagul faw dañ leen di xamal waaye mag ñi xam xam nañ ni réew mi mi ngi ci sécurité ministre de l'intérieur wax dëgg yàlla jóg na guddi ak bëccëg pour jàpp ci mbirum mbas mi jaare ko ci liñ ko dénk moom foofu daal bisuma lenn lu négatif loo xam ne daal lu ñu war a wax la ci réew mi war nañu am yeneen itte yu dul rek topp fi di wax ay affaires yi couvre ak yooyu noonu loolu loolu système bi laajoon la ci trois mois yi dugal nañ ko ci actuellement toll nañ ci beneen façade mooy ñu génn liggéey xool nañu àndee ak feebar ba yàlla diñ ci dimbali loolu mooy li ëpp important ci Sénégal yi ñu def ko ci seen xel te bañ di déglu jaaxil yi kese parce que koo xam ni maîtriser wul lim nekk amul benn xam-xam bu mu ci mën a indi jarul nga ko ciy déglu ndax mën naa tàddeel ñu bari ci réew mi loolu laa ci gis bata la. macha waaw jërëjëf sëñ Cheikh ci leeral bu dañ lay laaj xanaa kon kaddu yu mujj ci jotaay lu mu daal di doon waa Diassigui TV bi ñëwoon seet si la doon taataan waaw kaddu yu mujj yi nag eh, dama koy jëme ci sant sëñ Mountakha mm-hmm. ndax. fan yii dëkk bi yëngu woon na yëngu woon na ci yëngatu yu day waar waaye nii mu ci taxawee wax dëgg yàlla dal na suñ xel ñun ñi xam lan mooy am réew te itam xamuñu ko tey dong jaare ko ci ndigalul yàlla xam exactement adduna lu muy doxee melokaan bii mu ñu wan ñun dañuy ak njabootam dal na suñ xel kon ñu ngi ñaan di ñaan yàlla di ñaanloo ñëpp ñu ñaan yàlla yàlla di ñu may kilifa yoo xam ni dinañ ñu mën a tenir jamono bu ñu nekkee ci jaxasoo goo xam ni ñëpp ànd jaxasoo loolu rek mooy kàddu yi di ko ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm ci position bii mu wane bi jamono ji toll fii mu toll nii ñi nga xam ni tamit bi leen gouvernement bi yombalalee dina man kat maa leen tëjloo woon seeni jumaa waaye naa nga waaye xam naa lii jëmul kër te jumaa yi mënuñoo sax ci tëju mm-hmm. tijji leen ñoom ñu bañ a tijji ah tey nag dem nañ ba waxuma la tijji ay jumaa yooyu ay gouvernement bi tijji na réew mi yëpp. Mm-hmm. ñoom it buñ tëj seen jumaa yi rek nañ ko tijji ndax jumaa yi moomuñu ko. Mm-hmm. ñëpp a ko bokk te ay jaam yàlla ñu bëgg a jaamu seen borom ci ni ni mu leen waree te jumaa ci gën. Mm-hmm. nañ leen ko tijjil te bañ a déglu rek seen kàddu bopp. ndax it dañoo bokk ci réew mi te gouvernement bi bu la defloo da ngaa war a def bu la dindiloo da ngaa war a dindi ndax xam na baax la muy def. loolu mooy kàddu yu mujj yi baytaala di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci kaddu yu am solo yi waaye ci leeral bi waaye ba tey bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ci maat na ci askanu Sénégal rawatina suñu mbokku Sénégal yi nga xam ñi nga fële ca ñoom saa su ne sant la gërëm bu a baax suñu borom dool a dëgëral taxawaay bi te mbooleem nga xamante ne naa la waaye itam sant bu baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy topp Diassigui TV fépp fu ñu mën a nekk rek suñu xel du jóg ci ñoom benn yoon ñoom kenn ku ci ne fa mu ne lay bëggam ak mébétam yàlla na ko buur yàlla daal di jàppandal ci daraja yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dig daje incha allah wala bi beneen yoon ak ci beneen